asalaamaaleykum maa leen dal ak jàmm seen seen seen codeur donc tey dañuy def benn vidéo bu xaw a gudd mooy mise en forme de page donc mise en forme de page mooy lan mooy euh, tey jii ñu defar benn mise en forme boo xam ne page bi yëpp lay lay concerné donc tey ñu demare euh, dañuy commencé par générer du texte aléatoire nd voilà ñu def entre parenthèses donc soxla na hmm, trois paragraphes chaque paragraphe quatre phrases comme d'habitude ñu def entrée donc fii nii mën naa cee mën naa ma def mën naa ma jël souris bi ma indi ko fii nii ci début bi voilà bu ngeen gis ko muy ma def ma bi ma bës entrée voilà bës bi ci kaw pour mu ko ci kaw voilà ma def mise en page mise en page mise en page donc gis-gis noonu nañu les polices donc mën naa koo sélectionner bii moo koy indi au centre donc lii nii jàngoon nañ ko mooy mooy mettre au centre ah, yokk ko tuuti ok mettre ko en gras ñu ñu souligner ko voilà donc li nii normalement actuellement war ngeen a mën a defar ab page mel nii parce que li lépp on l'a vu ensemble voilà donc euh, tey euh, dañuy concerné wu ci mise en page maintenant dañuy ñëw onglet mise en page voilà maintenant bu ñëwee mise en page fii nii am nañ fi euh, ay boîte donc premièrement ce qu'on peut mooy defar ay colonne par exemple ay colonne ay colonne tey mën na ma sélectionner euh, page bi nii rapidement su ma cliquer ci colonne un deux voilà ci deux automatiquement da ngeen di gis ni que sama sama kii bi euh, sama page bi séparé na ko en deux colonnes voilà donc mën na maa ñëwaat ci onglet accueil ñëw fii nii ma ma kii ko ma bës ma tey jii ma justifier ko parce que boo ko justifier moo lay permettre ñaari colonne yi ñu tolloo voilà ok donc euh, man maa ñëwaat tamit onglet mise en page à part ça man na ma am bon numéro de ligne par exemple kon man na maa sélectionné waat ñëwaat colonne ma def ko un comme mu mel ni meloon voilà man na damaa am tamit euh, par exemple numéro de ligne ah, tey yi continue par exemple donc tey moom ligne yëpp daf ma ci defal ay ay ay numéro gis ngeen un deux jusqu'à jusqu'à quinze gis ngeen ah voilà donc mën nañu amaat tamit leneen fii nii lu am importance mooy euh, saut de page donc tey soo bëggee amaat parce que fii nii su ma xoolee sama document bi benn page rek la am même boo ñu xoolee fii nii ci suuf page un sur un gis nga ni ci suuf voilà donc tey mën na ma amaat benn page ci suuf c'est simple damay ñëw saut de page ma ma cliquer ci page voilà donc automatiquement damay am saut de page damay am donc ñaari page ci sama euh, ci sama document bi voilà naa bu ñëwaatee fii nii am nañ un sur deux donc mën na ma def retour en en arrière donc dama ñëw fii nii def retour en arrière donc mu mel ni ma laatoon donc maintenant ce que je vais faire ñëw ci onglet création voilà création c'est plus important donc tey ji euh, mën na maa ñëw ci filigrane euh, couleur de page ak bordure de page bordure de page mooy tey soo bëggoon a créer benn benn bordure ci sama page bi yëpp donc damay cliquer ci bordure voilà d'abord euh, mën na maa choisir encadrement mooy day encadrer page bi yëpp voilà fii nii mën naa fay choisir benn style de texte de ligne mën na maa jël bii nii voilà Euh, couleur bi man maa jël rouge wala mën naa ko bàyyi tamit mu noir ah bu ngeen su ma cliquer ci ok automatiquement da ngeen gis ni créé naa benn bordure sans page comme man maa ñëwaat ci bordure de page ma cliquer ah euh, cliquer ci couleur de page def ko noir parce que parce que c'est plus joli ñu def ko noir voilà euh, donc fii nii à tout le document moo defee ok automatiquement ah, da ngeen gis ne créé naa benn benn bordu ci sama page bi na à part bordu de page bi mën na maa créé benn couleur de damay ñëw kii di créé ci cliquer ci couleur de page mën naa ko def gris wala couleur bi nii wala couleur bi wala bi nii gis ngeen vous voyez donc créé naa benn couleur de page waaw filigrane filigrane des ngeen gis euh, fascicule yi ak yu demee noonu wala ci feuille yi ñu ci élection yi en général dina am benn bind bu ndaw boo xam ni mooy nekk ci arrière bu bu bu bi voilà donc loolu la ñuy woowee euh, filigrane donc damay cliquer ci filigrane voilà hmm, mën na ñëw cliquer directement ci brouillon pour am exemple donc mu cliquer ci brouillon gis bu baax filigrane bi maintenant damay dindi couleur de couleur de page bi pour ngeen ko mën a gis damay dindi couleur de page bi def ko blanc voilà donc gis nga ni ci ci euh, en arrière sama euh, sama filigrane bi man maa cliqué ci filigrane par exemple euh, ma ñu supprimer le filigrane pour dindi filigrane bi voilà donc su ma cliqué waatee tey jii mën naa ñëw ci filigrane personnalisé voilà donc filigrane personnalisé donc fii nii soit mën nañu cliquer utiliser image mu nekk filigrane wala ñu utiliser du texte waaw mais en général nit ñi texte lañu ñu mais c'est la même chose bu ñu ko may def ak texte rek di ngeen ko a def ak image voilà donc tey jii am nañ fi ni image par contre boo choisir image da ngay ñëw fii nga choisir image bi nga bëgg a def en filigrane wala nga choisir texte nga choisir texte bi nga bëgg def en filigrane donc bu dee image la choisir damay cliquer fii nii def travailler hors connexion choisir par exemple logo bii nii entrée voilà donc tey su defee euh, appliquer da ngeen di gis. ni que sama image bi nekk na en filigrane voilà gis ngeen fermé voilà donc image bi nekk na en filigrane man maa cliqué ñëwaat supprimer le filigrane cliqué waat euh, ñëwaat filigrane personnalisé maintenant au lieu de image tey dañuy choisir texte en filigrane fii nii euh, mën nañoo choisir benn exemple mën nañoo def exemple exemple exemple exemple mën nañoo choisir bon euh, police bi mais man ci choisir bii nii calibri c'est bon pour moi taille bi tamit mën nañ ko yokk couleur bi tamit mën nañ ko changer man nañu changer couleur filigrane bi diagonal mooy tey dafay nekk en diagonal horizontal mooy euh, disposition bi dafay nekk horizontal donc mën maa def appliquer automatiquement da ngeen di gis ni que euh, créé naa fii nii benn filigrane ci sama document bi donc tey gis nañ ci ni bon en gros c'était lii lañ moo na gis ci ci euh, mise